asubillahi mina sheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim barke borom Touba barke borom Touba barke borom Touba jërëjëfe Serigne Salihu jërëjëfe Serigne Salihu jërëjëfe Serigne Salihu ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci géeri géer ñi Seydina Mohamed ñi nga sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu di gërëm sunu sang ba Serigne Salihu Mbacke di gërëm Cheikh Mouhamadul Mountakha mu Cheikh Mouhamadul Basir yàlla na fi yàgg lool te wër di gërëm sëñ Babacar si Mansour yàlla na fi yàgg lool te wër sëñ Ablaye Thiaw Laye yàlla na fi yàgg lool te wër Cheikh Ahmad Tidiane Niass yàlla na fi yàgg lool te wër suñu waa kër maam Alpha Thiombani suñu waa kër maam rawan gom ak suñu waa kër maam yi nekk ak sëriñ Mounir Ndiégène ak bépp kilifa diine bu nekk Sénégal ñi ngi leen di ñaanal yàlla fi yàgg lool te wër ndax ñoom ñooy kenn diine ji ndax ñoom ñoo téye diine ji maanaam ñoo ñuy ñaanal ñoo ñuy tinul ci yàlla sunu borom kon yàlla nañ fi yàgg loolu te wër di nuyu njiiti réew mi président Macky Sall ndax su amee jàmm yàlla na am jàmm ndax su amee jàmm réew mi am jàmm ndax damay faral di wax ne président bi dañ ko war a ñaanal jàmm ndax bu tiimoon benn dossier mara détaillé ñu ne ko sa doom dafa feebar day jóg bàyyi fa dossier ba te dossier boobu njariñ Sénégal lay doon te dootu ko tal te doomam lay tal kon nit ñu ngi koy ñaanal yàlla na am jàmm ak njabootam di wax nag asalaamaaleykum mbokk adduna bi yëpp rawatina waa Sénégal ñuy ñaan suñu nuyoo bi yàlla na fekk yéen ñëpp ngeen nekk ci jàmm. tey nag Serigne Bass Bamba Xéewal moo ñëw ci émission bu mag bii ñuy wax leeral fii ci Xéewal TV ñuy ñaan ngeen di abonné ci Xéewal TV ndax ay njëriñ yu kese la tey nag suñu waxtaan dañ koo jëmale ci tabaski tabaski nag yàlla dañ koo defal muy noos yàlla defal ñu ko muy feet waaye fii maa waxe yow nii gars yi bu ñu sañoon ñu arrière tabaski gi ndax kenn yàkkamtiwul mu ñëw ndax kenn pareegul. ndax lan la fi ñu teg tabaski moo kawe li ñu jàppaneel mooy tabaski lool du tabaski tabaski sunu maam Ibrahima moo tëdd guddi yàlla ne ko rayal sa doom di seet ngëmam fu mu toll rayal sa doom mu xëy suba wax ko doom ji doom ji nangu seytaan dem ca doom ji ne ko yow da la war a rey suba kon boo yeboo nga daw mu jël xeer sànni seytaani mu dem ci yaaji ne ko sa doom ji dañ koy rey suba yaaji jël xeer sànni ko waral sànni bi ñuy sànni jamra fële ca màkka maanaam xeer yi ñu doon sànni seytaan yi moo ko waral kon xam nga ne kon génnagul jaamu yàlla ba léegi ibrahima ba mu jëlee doom ja takk bëtam takk bëtu doom ji jël paaka ne bisimillahi rahmaani rahim allahu akbar dawal ci defe na ci baatu doom ji la koy dawal yàlla yebal jibril mu jël benn xar remplacé kook doom ji mu rendi tekki yi ni alhamdulilah doom ji tekki bët yi ni alhamdulilah xar mi taxaw ni alhamdulilah mu nekk ñetti sant yàlla yoo xam ne xar mi sant na yàlla ndax rendi nañ ko ci bisu tabaski te xar yi nekk ci àdduna bi yëpp dañuy ñaan yàlla pour ñu rendi leen ci bisu tabaski Ismaïla it nee na alhamdulilah ndax topp na ndigul yàlla ba nangu ñu rendi ko yàlla remplacé ko xar Ibrahima it nangu na ndigalu yàlla ba jël doomam nar koo rey yàlla remplacé ko xar loolu moo tax ñetti alhamdulilah yooyu taxaw kon li am solo ba am solo kon jàmbu yàlla la tabaski léegi tabaski yooyu ak tabaski ak tabaski yi ce que benn la ndax tabaski boo xam ne ku nekk day xool sax morom bu jëndee xar ba pare nga jënd bu ko gën a rëy maanaam la nga war a dund ci at mi yëpp ngay dajale jënd ko xar yow nga jënd xaru cinq cent mille te boo añee doo reer lan moo la ci dugal sama dëkkandoo bi kat ponkalum xar na jënd wala ragal naa sama jabar sama jabar takk na ma saret xar moo indi mu ne bii tuuti na xar moo indi mu ne bii xanaa gisoo xaru Ndeye Fatou Ndiaye bi xanaa gisoo jëkkëram xar mi ko jëndal léegi nag man bu tol noonu laa bëgg ndax Ndeye Fatou sama nawle la est-ce que Ndeye Fatou Ndiaye jëkkëram du sàcc est-ce que Ndeye Fatou jëkkëram du jaayamba est-ce que moom Ndeye Fatou sax moomu iska jël lu xaas jox jëkkëram iska ce que cagatuwul jël xaas jox jëkkëram ndax tabaski yi fu nekk lay jóge yow mi am sa doom bu jigéen mu dem nekk benn dëkk di jaay boppam di cagatu tabaski mu ne xar mu rëy nga naan alhamdulilah fekk da war ñaanal pour ba loolu tabaski xaalis bu sell lañ koy defee du xaalisu sàngara du xaalisu jaay sa bopp du xaalisu sàcc du xaalisu trian tabaski da ngay ñàkk xaalis wala ñu may la ko mu doon lu sell nga tabaskee ko léegi tabaski yi dañuy tiitaroo xar yi maa gën a rëy la xar sama xaru daaw ma te boo jëndee xar mu mag ren déwén moom far force xar xar bu ko gën a mag ngay jën léegi fitna yooyu dangay gis ay borom kër yoo xam ne tabaski day jot ñu lakk xar mi mais du ñu mën a lekk benn dog la ñuy lekk suur ndax lan bor ba ñuy bor bi ñu war a fay xar mi ndax nee nañ ko ginnaaw suba ma fay la te yaakaaruñ ko fenn léegi nga xottil sa jabar jasneer wala yére boo xam xottil ko cheveux naturel lu si tabaski. sa ba la tëral bokkul ci tabaski waaye xottil ma jasneer jëndal ma sëfa jëndal ma ay or ma takk ci bisu tabaski léegi la nga war a dund yëpp nga jël ko jox ko sa jabar maanaam su affaire yi paase nga torox am na ñoo xam ne sax amuñu jabar gel la ñu am gel mais ñooy xotti seen gel jëndal seen seen gel bi yaayam ñu ko xar di jaay joom ba ñaaw te yaay am na ñoo xam ne dañuy bàyyi seen yaay dem jëndal seen gel xottil seen gel jëndal seen seen gel tabaski ta seen yaay amul tabaski Sénégal lépp nga fiy gis Sénégal gii lépp nga fiy gis kon tabaski jaamu yàlla la Manam amal khas bu sell nga jënd xar mu mata tabaski moo xam bu ndaw la xar mën naa ndaw mata tabaski nga jënd boo jëndee dem sol sa yére bu set bu amee bu bees solal boo amul setal boo passé bu mu rafet nga sol jël sa sujaada dem jàkka ja julli boo jullee ba pare nga ñaan yàlla su iliman bi rayee xaram ba pare amna ño xamne sax duñ fa xaar iliman bi khutba manam bu assalamu alaykum rek jog nañu dem sen yoon te imam bi boko ñëkke njëkkee xar yow bo reyee xar tabaski wo yap nga am Legi, nga gis ku nan tap la bëgg mo gëna duuf te tap pour nga tabaskee tap da ngay wër ba am bay bo amul bay bu goor bay bu goor sax mo gën tap waye tap bi lan lañ ci jublu yap bi yap bu duuf kon yoy sax ustaas yi dañ ko waxtane waaye li ci mëna si mën wax nga sa dem julli ji togal imam bi khutba bo ñëwee imam bi na xaram yow so ñëwee nga ray sa xar so ray sa xar am na ñoo xam da ngay gis ño xamné ku gor ki day téye xar mi di ray ñëpp japp ci ñu naan wala dañ cey japp ñi jappalo affaireu xaram yoy naan dañ ci jappalo wala ko xamné ne ndigam day metti na tok xar mi weq ko ndax ndigam bi dañ ñu xaru tabaski xaru tabaski nañ ko def ni yoy yëpp ay bidala ay la tabaski daal reyal lakkal toggal saraxel nga jaamu yàlla guddi gi nag moo ci ëpp solo ndax comme yàlla bégal na la tabaski yàlla moo ñu ko bégal ñun jullit yi waaye fi mu nii fitna la ñun fitna la fitna la ci ñun ndax dañ cee boole lu ci bokkul liñ ci li ci bokkul mooy njëkkante maanaam gën a ëppale xar gën a ngandale xar gën a baax le xar gën a rëy la garaam mbubu gën a gudd le cheveux naturel léegi rey nga sa xar lak nga lek nga bu guddee dem nga jaamu ji yalla da ngay gis ño xam ñi ngi ci marché yi bis bu ne suba ñu tabaski jilu ñu takusan jilu ñu timis ñu gee te ñak julli bobu manam julli bobu mo gën tabaski gi manam bayyi tabaski dem julli ji mo gën nga bayyi julli dem tabaski ji ta tabaski sunna la euh, julli nak farata la yalla moo ñu bis bu waktu waxtu yu juroom ñukoy julli ci waxtu yi yalla mo nu ko kon legui yang ci marché bi di rang sa ñaw yaangi ci marché bi tok ci bi di rang sa ñaw timis fala la fek ge fala la fekk nga ne lan sama yere tabaski mu jaral la ngay joy jaral la ngay xuloo te li la li la jaral joy moy ñaka julli bi nga ñaka julli mo la ko jaral legui jël nga sa ñaw ba paré nak demat jëndaat beneen daggit boo pour la pour say say yu mag yi nga ñom tabaski dañ ci am xaliss maanaam dañuy tëgg ay soirée moo tax président Macky Sall lii nga tëjee baar yi ak boîte de nuit yi ngir yàlla ak yonent bi continuer ko bul bàyyi dara fi mu ne ñu ngi rap rappi seen yaram yaa ngi xesan loolu la ñu ngi koy génne ay yëngal ak loolu la ñu koy génne ñàkk nañ kersa ñàkk teggin xamuñu dara lu lu ñàkk teggin rek la ñuy woy li ma lay xamal nag dimbale ñu ngir yàlla ak yonent bi rek bul ubbi dara tëjal lépp ndax bu si tabaski ñu ne ndax ku wër fa bi sa jeex. couvre-feu bi dañ ko waroon téye ba tabaski bi passé ndax ñu bañ a mooy yàlla ci bisub tabaski guddi tabaski da ngaa war a jël sa kurus waroo nelaw da war a jël sa kurus toog sant yàlla ndax nga xool daaw tabaski daaw ñaata nit ñoo fi nekkoon ñoo la gën ñoo la dàq julli ñoo la ëpp alal ñoo la gën a wër te dee nañu ci biir suuf ñaata nit ñoo dee ci diggante tabaski daaw ak tabaski ren. yow yàlla may la nga fekke tabaski daaw fekke tabaski ren santoo yàlla lu dul sol sa yére guddi naan dangay ngay dem baali loolu yëf rek koy def dañuy nekk day maanaam Sénégal ñu ci bari dañuy nekk ay jullit bëccëg gi bu guddee ñu nekk ay yéefar bisu tabaski moom ku ci baali yéefar nga ku ci dem soirée daan da ngay baali yéefar nga bisu am sa am na bàkkaar yoo xam ne am na bàkkaar yoo xam ne tey jii soo demoon tey weeru koor nga def bàkkaar bu la bind bu fekkoon benn lan lay bindal junni lan la ci bindal bisu korité nga def bàkkaar boo defoon benn junni lan lay bindal xoolal xale yi xale yi ñu jàppoon ci bisu korité bi passé korité bii passé bisu korité ñu nekk luy seen appartement maanaam di def lu leen neex naan dañuy jouer porno maanaam di di roy tubaab yi càggarte juddoo guru ay xale kenn mënut a wax Sénégal ndax soo waxee soo da ngay wax boo waxee ba daaneel sa kàddu rek gis leen lu gën a rëy loolu léegi nak te loolu yàgg naa am ndax lan moo koy indi dama leen faral di wax sa doom bu bu amul jëkkër yow joxoo ko ko amul dara day taqale su weer mu fayal la courant fayal la ndox maanaam tabaski jot mu yow ngandam xar waa fan la ko jëlee est-ce que góor ñi dañoo dof wala jinne dina la jàpp ba ñuy jël ay millions di ko may xale yu jigéen yi te defalu leen dara xale yu yi kenn defatu ci sax buñ la ko di am soxla ci yow. kon nag gars yi moom rokk mi rokk la ñuy def comme nag rokk mi rokk la yow jéem a la liggéey sa doom bu indee dara nee ko fan nga ko jëlee am na ñu bëri ñoo xam ne seen doom ji ngi naan maa ngi liggéey Dakar maa ngi liggéey Mbour maa ngi liggéey Kaolack maa ngi liggéey Thiès fekk waxuñu dëgg dañuy fenn dañuy ay cagalañ ñu ci bëri ay cagalañ am na nag ñoo xam ne dañuy liggéey maanaam di daan seen doole am na ay jigéen yu baax ndax soo xoolee Sénégal palaasu liggéeyukaay yi nga xam ne dafay am xaalis yëpp. tegu ci yoon jigéen ñee ko yor am na place yoo boo ko joxee góor ñi rek ñu muuroo ko lekk nañ xaalis dem seen dem nañ seen yoon ba ci banque yi boo gisee jigéen ñaa fa ëpp waaye am na ci jigéen ñoo xam ne jéem bu ñoo liggéey lu yomb rek lañu bëgg te lu yomb baaxul kon nag ku ci jox sa yaay xaru tabaski na ko ñaq bu ko cagatu dem naan da nga koy jox sa yaay bul jaay sa bopp naan da nga koy jox sa yaay ndax bu lekkee xar moom ay feebar rek la koy indi am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi feebar tension ak diabète sama tànk yi day tàng sama yaram yi day ruux dara deful leen ko lu dul lekk gu araam gi ngeen di lekk ba pare xam ko bàyyi sa doom bu jigéen muy jaay boppam ñëw jox la ngay lekk feebar rek la la indil da soo xamee day indi saako ceeb fay courant nga naan ko yàlla nga fi yàgg yàlla nga yokk muy gën a yokk rek xa li jëntil fan la ko jëlee kon tabaski daal bu ngeen ko bëggee dégg lu simple la boo ko amee war na la soo ko amul wàcc na la léegi am nga ñaari jabar dem jënd ñaari xaru tabaski ñëw ne sa aawo sa xar a ngi nii sa ñaareel sa xar a ngi nii yow an sa xar amoo xar léegi yow yow jëndal nga nit ay tabaski te yow tabaski foo li gën a ëpp solo nag ci jamono bu metti bii amal ñeenti jabar jëndal benn xar yéene ci sa sa sa sa njaboot yëpp sa jabar yëpp nga rendi xar mi yéene leen ci waaye ay am na koo xam ne naan lii lii bu ma ko defee musiba tas am na loo xam ne bu boo ko defatee àddina bi tas te loolu mooy yoon loolu mooy yoon jamono moom metti ñu bëri nag li ñuy dunde at mi moom la ñuy jël lekk ko ci bisu tabaski am na ñoo xam ne nag bu tabaski jege seen loo lebal ñu leb am na ñoo xam ne dañoo téye seen xaalis ci bisu ta maanaam ba tamit bi nit ñi am problème du ñu def te yàlla tax dan lay lebal maanaam fukki junni nga fay leen fukki junni ak juróom wala ñu lebal la tisi boo xam ne boo ko doon jënd mètre bi 5000 lay doon ñu lebal la ko mètre 15000 te ñàkk a pexe lay doon il faut nga jël ko léegi nag soo ko jëlee boo fayul ñu porte la plainte yóbbu la police bu tabaski paasee boo demee police ak ak ak gendarmerie plainte yi ngi fay fekk yëpp ay tiisi la jasneer laak cheveux naturel ak ay xar te jaru ko tabaski jarul lépp ndax du farata sunna la boo ko amee war na la soo ko amul wàcc na la ay yere bu bes far force ma sol yere bu bes du tabaski damay am jazner du tabaski damay am seven natural du tabaski rawatina nak tank njëkk yi ko joxul tank, mu ne pour lan joxuñu ma tànk yow nga ray saxar ki ray xaram yow nga tey saxar mu mat sëkk ke wañi tankam jox la pour lan ñàkk fayda mënta weesu lool yow mi ñi jox xar tank bi sax war nga xam li du yoon comme yow am nga saxar lan ngay dee tank jamur nga mankel xaru jamur ay tak ñëkke ay tak gorok ba paré sa way lolu dafa yag Sénégal kon lolu moy tabaski guddi gi nak giñ kat yek fecckat kat yek way kat yek lolu bokul ci tabaski bo xolé bisu tabaski nga dem ay ci dëkk yu mag ni da ngay def na àdduna bee bëgg tukki ñepp ay solo ta xalé yu bari nak ci lañuy ëmbé xalé yu bari nak ci bis bo bisu yoy bisu tabaski yoy wala ay ay ay ay koroteeg yoy buy passé nga gis xale yi commencé ëmb ndax lan mooy tax da gis xale boo xam ne du génn léegi tabaski nag ñëpp dañuy bàyyi seen doom yi léegi ñu libre bu ñu génnee xale góor yaa ngi ci àll bi rek bu leen xale góor yi jàppee nag moom foofu la carte gi jeex na. léegi nag lan moo ñu ko lan moo ñu ko teg mooy bisu tabaski bii bi ñu bàyyi sunu doom yi ñuy génn naan dañuy ñaan na nag dañuy seeti dañuy seeti maanaam sa damay baalu ji àq ak baalu dem jaaxaan sa kër loolu kay yokk àq la. te yooyu yëpp bisu tabaski la am na kilifa bo xamné dafa am ay jang yu mu don at mu jëm jang yu mag ci ben dëkk ndaysan jang yi si mu koy préparer ni mu togué ci bi négam di noppalu rek am nga négu sàkket yi ñetti xalé yu yu melni ni mi maanaam ñëw ci ci taatu bi di waxtaan ben xalé bu góor bi ne ko yow kañ nga kañ nga jëlal jigen manam kañ nga gëjë ak jigen mu ne ko yi daw ci jang serigne diw bi ca jang serigne diw bi dal la ere won diw dem tëdd ak mom ca la gaja ñam jigen xolal lool pa bi ne beurek serigne bi ne beurek commencé mbeuk permi commencé joy wuti penc ma wote ci penc bi ñepp ñew tok mu ne ma ngi jéggalu yalla ma ngi balu yalla jang yi ma don def fi amatul ñu ne ko lay wax li mu ne amatul man ma ngi def sama jang di sante yalla ndekete yo xalé gori ak xalé ci sama jang lañuy profito di ci moy yalla bàyyi naa jàng yi xoolal njàngan moom léegi nag xoolal xoolal nga boo organisé jàng ci koñ bi nii ñi nga xam ne ñoo ñooy ñoo jur xale yi du ñu tal xale yi dañuy dem ca jàng ya toog xale yi ne sama tante ma nga jàng ya sama yaay nga jàng ya sama papa nga jàng ya génn toj dëkk bi am na ñoo xam ne dañ leen di tëj bu nu moo tax xale kenn du ko tëj xale da koy xamal lan mooy àdduna wax ko lan mooy àdduna ndax bari na ñoo xam ne ëmb nañu bu nu ambee nit ñi dar seen gémmiñ ndax daawuñu génn ban bis la ñuy génn mooy ci bisu tabaski yi bisu korité yi wala bisu xew-xew yi ndax waajur yi dootuñu leen tal da leen di bàyyi ñu génn tase ko mel ni baaba gale nga xam ne bandi la mu jël leen nag def leen la lam leen def buñ tegee ay fan nga gis mu ëmb ñu naan kii fan la jaar fekk te bisu xew-xew boobu ci la ëmbee kon mbokk yi xool leen loolu bu baax yéen ñëpp sàmm leen seen doom yi ndax borom kër bu nekk sàmm la yàlla dina la laaj nan nga doon sàmme sa njaboot bala nga jéggi sirat yalla dina la ko laaj bu dee di nga jéggi sirat bu dee baaxul doo jéggi sirat maanaam da ngay daanu ci pomba kon ñun ñëpp dañoo war a sàmm suñu njaboot di ñu xool est ce que ñun ñi ngi sàmm suñu njaboot xale yaa ngi nii mel ni fitigu mbër sànni kenn xameetul kenn lu way neex def lu way neex sol xale yi ñàkk nañ kessa ñàkk kessa goo xam ne te xale yi jógewuñu fenn fu ci kër yi jógewuñu fenn xale yi jógewuñu ci gétt xar yi ci nag yi ci biir kër yi la ñuy kon ku nek na sam sa dom yar sa dom yow nak mi nga xamne yaay borom keur gi budé da nga mëna fenn say dom dañuy fen bu dee da ngay taxawalu sa dom day taxawal ndax fen mën ta passé nga ne sama dom. bu fi bu fi bu fi ki beccëk bi ñëwé nee ko nekuma fi yow lepp nga beccëk bi war ko jox 100 francs beccëk bi ñëw nga dugg sa biir nek mu ne sama yaay nekku fi fen lo nga sa dom wala nga yor sa tok yor sa portable sa dom tok say dom yëpp tok nit wala fo nek nga ne ko mangi ngi Dakar fekk yaa ngi Thiès loolu ay fen la wala nit wala nga ne ko mangi ni departement mangi sama auto yaa ngi say dom loolu ay fen la kon yoy yep nit mi ngi jangal domam fen nit mi ngi jangal domam taxawal borom keur yi nak ñu ci bari dañoo démissioner ken yaratul ken bu ñeuk ba da nga nan yow fajar fekk sa dom yep ñu jog nga taxaw ci kanam jité len waye borom keur bo xamne day nelaw ba ba 3h wala 4h mu jog nu mu loolu mooy àdduna loolu mooy Sénégal fi mu nii kon nag nañ tuub delluwaat ci yàlla ñun ñëpp te xam ne tabaski gii jaamu yàlla la ku am warna na la amul wàcc na la te yéen borom alal yi ñi nga ne am ngeen xaalis ngir yàlla ak yonent bi dimbale leen ñi amul jaamu leen yàlla ci tabaski gii waxuma ngeen jënd ay xar ñu naan kër géej ma ngay séddale ay xar ku ci nekk jëlal nga jox ko mu dem jënd jënd xam dara ndax am na loo xam ne boo ko defee ngir ngistal ngistal nga ci am loo xam ne boo ko defee ngir yàlla yàlla nga ci am kon yàlla yàlla defal ñëpp yàlla nañ yàlla may jàmm ba ñu fekk ko te buñ ko fekkee yàlla ko tal te lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla nañ ko jariñoo lépp loo xam ne nag bàkkaar la ci yàlla nañ yàlla dimbale ba duñ ko def allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman barke borom touba barke borom touba barke borom touba jërëjëf sëriñ saalihu jërëjëf sëriñ saalihu jërëjëf sëriñ saalihu